bu len faté abonné ci sen sen YouTube Samsung TV jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé ngeen sen ci sen écran samsul huda ahmad afaaqi Allah samsul huda ahmad Samsung TV mooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu Samsu TV ñooy suñu Samsu TV mooy شمس تيبي لني بقي بأرجنا وشمس تيبي لني بقي بأرجنا بقي بقي بأرجنا الله يخرج الله يخرج لا اله الا الله

خليف دفن في قوم جرنا قضيت nee na ayo tey ñëpp toog na ñëpp toog dal. ila la yasmuru basa qalbi wa wado sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ay li bugni abi الوصال أسعادة الذي وصل يا من مرمر يقول وقل المنايا يا من مرمر لا نمثلكم منايا من دارين متاه يبيح نطاق صبري أن ndeysaan bëri bëri yëti faxa nag ñi doon kali wala تبدي فلا بنية لله من أرض من هنا

Hello. تلي من الغفير عليه وسلم فاقبلوا مني موسى اين سيح المرشد مرد المحيي بن يسيح الى انشاء بها موسى محترم إذا شئتم ربي ربي ربي أن تولدوا عيسى مرتدى كون في غد وعلى من يبدري الله الله زرع كل سحر لابتداء محمد فذلك منهل لنجاة ومحل من لا

الرحمن الرحمن والجاه أيوة يا قوم خدمر خدمر خدمر شغلكم أنت خدمر من الرحمن والجاه خدمر خدمر كل شهد الرحمن والجاه المنصور يا يرخي لا فاقر

القدر من الرحمن والجار الرحمن والجار أمركم من أين أبدوا لا إله إلا الله أمركم Asamaan waaye suuf ga la la la

gàttal ba taray moo di naan yaay sunu guddi yaay sunu bëccëg yow la nu yaakaar tey ba ëllëg ku sopp maa mi sëriñ Sëriñ yaa dawal sa bu yàmbur bu ñëw voyage war koo gërëm ku sopp maa mi sëriñ Daara xaar مرقب جد بالفنيار اي راي بروم نيغال لاي والله ورسو جامبر وجاي بيا جوركو بسم الله سيدي شيخ احمد تيجان جوج ñaareelu xalifa yëkkati sa loxo ñu màggal maa di sëriñ Mbaye Diop sëriñ Ahmadou Ndaa jar na ko kay ay ay walaay bi sopp baay sëriñ Abdourahim ñi ñuy jooy dana benn yoon yëkkati sa loxo ñu màggal ma ma ne war naa ñu war suñu jàmbur def day voyage war ko gërëm mama may wone seen naam بسيد أحمد المجاهد moo jëf lu rëy ci biyaalam ba ñëpp gis maa ngi sëriyaas borom ndigal man yaa jabal di Cheikh Ahmad al Mujahid ilaahi def roy ci bialam ba ñëpp gis يا شيخنا يا احمد المجاهد سيدنا لوي بالريوم خمي دو مروم كان سوق سمان عمر دقنا يا ممالي عجبا عجبا عجبا karim rafaal ku nekk ci tànn bi sopp maam Mamadi Ngoone waxal la jabal waa karim rafaal ku nekk ci tànn bi neen neen la jabal la jabal rahman al mujahidin bilaay moo jëf lu rëy ci li alam ba ñëpp gis borom ndigal seen maam ya soy xanaa ya ahmad al mujahidin tey nii naa la way ba réew mi xam ni doo moroom maam ma bari ngoo ne seen maam ay waay ku sopp soppe ما يشرع متيجا ورب القرآن قرق فردنا من يا شيخنا يا أحمد المجاهد سيدنا لويد ريوم خمني دوم روم ماما مريق ولناك يا خيخيون يا خيخيون قرقين الإسلام صغدوي يا عجبا شيء ما كيم سوي لجف يا جو مكتبه عالم billaay yu ñëpp gis seen maam ku sikki sàkk daa xamul sooy la jëf maama mari ngoone sëriñu waa kër mosul la jeey ku sopp maama mari ndaak fi taxul ñu magal ko loxooy loxooy maama mari ndaak seen maam jiyaat yu mag ci biir aadam yu ñëpp gis billaay ku sikki sàkk daa xamul sooy la jëf maama mari ngoone man ko faraale tooñ nga leeral ko ñaaw teel ya bina imam makkan mooy rek imam marina karaw la woo ku li dongo bina yi dajal ne ñaaw gi a cheikh wa amadou sama sëriñ ba yónne na wooma mama mari ngone daal mun na naan njaboot gi dama war a gàddaa yi taxawu ju diine wallahi balaa jant so dinaa sori loolu ka joor mama mari الأغلى في بلد كيما يكون لهم في دين إصلاح برد جسم بساجو وصف ما ممردات دولني يمدو سلم أنت الذي بارد الأغلى في بلد كيما يكون لهم في دين إصلاح ما ممردات وعقبت أخلاق شرك حتى إنهم سنمام ميجام يلا جريون في أي ko sopp sëriñu Baye Alé Ndiaye defal nii ñu màggal ko mama mari ngoone wa aqafta axla shirki hatta innahum mi jaamu yàlla di roy yonen fi ay jëf yi mama mari ngoone laasim wala واي ثم لازم قوى لازم الطوب شيخنا المجاهد ما ممريون كوكو سوبنا لي مغلغو اشكو الى الله كرخل احمدي يا ليتنا يدلو سنو كوسب ما مرينا اشكو الى الله

شمس الهدى Samsu TV mooy suñu télé Samsu TV mooy suñu télé dee TV mooy suñu télé Come, come, come to TV. Sam City Vilani bege ba aljana aywa diko bege ba aljana ana wadara ji Sam City Vilani bege ba aljana ay ba aljana wa Sam City bege ba aljana aljana